sentiment bi sentiment sant yàlla la parce que man ci sama discours bu ngeen doon seetaat li ma ci lim ne tout est grâce dafa bari xam nga grâce mooy loo xam ne loo xam ne lii yàlla dafa la ko defal te mérité woo ko man loolu laa jàpp te suñu borom li mu yor lu baax rek laa ci gis man ba ma juddoo ba léegi di jàng ba fi ma taxaw nii man jàpp naa man suñ borom li ma defal mel man la ko defal te loolu awuma du mës a jeex pour ma koy sant ci li ma defal parce que liggéey jàng ba génn démarré nekk éducateur préscolaire maanaam case des tout petits yi man mii nii fala tàmbalee ak école maternelle di liggéey en tant que éducateur préscolaire mhm. def naa ko huit ans comme adjoint dix ans comme comme directeur d'école wax naa dëkk yi ma jaar ak région yi ma jaar ci sama discours suñu borom baaxee la nga dugg école nationale d'administration bokk promo ak préfet bi toogoon fii ak jëmm ji taxaw nga xam ne Simbandi Brassou la jógee sous préfet Simbandi Brassou la tey suba rek la may wax ne ma ñun suñu borom desaluñu dara defal nañu lépp lu ñu waroon defal nit ki nag moom suñu borom dalay defal yow da ngay do do fois fi nga jógee ngay fàtte fi nga jógee mais il y' a euh, euh, un autre autodidacte de Palmarin qui disait que Ken ku nekk bu xamoon bu nattoon fa mu fi mu day te man fi ma déparé man xam ak samay mbokk ak fi ma j'ai fi ay sous-préfet ans ñu ko Dakar parce que man Bambilor jëm si fi. terminé ça san pour parler rue rues, c'est la main de Dieu mhm. samay wajur. aussi samay xarit samay am di jàmm ñi nga xamné ne ñoom ñëpp ak samay patron yi nga xamné amna len dans l'éducation directeur d'école comme inspecteur wëlbatiku encore comme ay préfet ak samay collaborateurs yi ak population yi nga xamné dama tass ak ñoom parce que ñoom ñoma modifier modifié ma ak samay formateurs yi nga xamné def nañ ci man li nga xamné def nañ ko au niveau de l'administration administration ñëpp ñi nga xamné lim na len fi sànq ci ñoo xamné ni def nañ ci man te yàlla jaarale mbir mi seen loxo mom moy le personnage là qui est là comblé qui est satisfait qui rend grâce à Dieu qui le loue di ko sant di murid dañuy wax ne sant bay fecc man mom la def tay parce que am nga nit liggéey na fenn di génn population yaakab di nga dem góor gi ma yar day wax ne ay nit bu nit booy ak mom bu ngeen di taxaliko fexel bu mu la jëppi te loolu population yi nekk fii nii rawatina maire yi 5 lañ euh, ministre Abdou Karim Sall wax na fii honorable député Cheikh Aliou Bey wax na fii el maître el Mamadou Ndiaye wax na fii te li muy yóbbaale yóbbaane na euh, euh, député Moussa Fall yóbbaane na Mbaye Sène mais kaddu mënul weesu ces ces populations là nga xam ne ñoom gagné élection locale wëlbatiku ñaar ñii nekk nekk député ci ci ci même année bi donc ñooñu boo nee ñoom yoruñu c'est pas des porteurs de voix yaa ngi nax sa bop ñoom ci seen bop bu ñu demee ba xalaat loolu ñu ma xalaatal bon moi je reste à leur disposition parce que mun ma leen ko bañal léegi nag buñ ma mayee ba ma parce que man gëmuma lu dul réew mi laa gëm te réew mi keneen du ñu ko tabaxal bu dul ñun sénégalais ñoo koy tabax suñu bopp la preuve ngi nii nekk ay photographe ak ay journaliste regarde les initiatives locales la yoo xam ne yéen a ko def Mbao FM 3SA TV dafa bari dafa bari réew mi ñun ñoo koy développé et ça va se développer dans la paix jàmm ji ci la affaire bi nekk newul ci leneen te ñu ko waxee yàlla dogal aussi fi ma jaar ak jaar-jaar yi ma jaar ci njàngale mi ci ci ci ci euh, ci ci administration territoriale bi ma def bon dëgg-dëgg am na as tuut loo xam ne xam naa ko te xam naa aussi ne lu ci yëngatu ci lu bees aussi ñi ci nekk ci biir dañ koy xel di seddoo bu boobaa nag man pare naa pour ay population yi aussi ma continuer bu yàlla mayee kattan parce que lépp moom la maye wër maye tal ah bu ma servirul euh, réew mi ak li ma defal ba sànq maa ngi doon wax ne président monsieur le président de la def na ma chevalier ordre national du mérite juste avant may avant may dem le 28 la loolu am le 29 ci le décret bi tombé pour ma dem à la retraite donc man awuma lu dul Sénégal te lu may def aussi Sénégal laa koy dellu rawatina arrondissement bi nga xam ne fii laa jeexale mais nag du ma fàtte bawul gëm a dëkk parce que moi je suis un citoyen du Sénégal gis nga ñëw lim yëpp Fuuta ba fii kii a ngi nii euh, département Goudomp la jógee région Sédhiou te tey bu ma woowee foofu damay dem taxaw kattan daal naam tal lépp daal lox naa wàcc naa ak suñu loxoy borom di leen sant ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo baax pour yéene ma loolu. la ngay wax euh, ñi nga xam ne population arrondissement Thiaroye bi ci ki nga xamante ne moom nga dalal mu daal di tàmbali liggéeyam pour ñu accompagner ko ci liggéeyam bi nga xamante ne moo koy xam. non moom dama koy ñaanal wax naa ko fii parce que arrondissement bi mu ñëw benn ci gën a am solo ci région Dakar ci la bokk ku ñu ne caaro Thiaroye. titangé dina la dal kuñ né département Pikine titangé dina la dal mais nak li préfet wax fi bon deug deug ko déglu nga xamné nit ku am xam-xam la kuñu tan tànn ko fi bu bu bu bu démé ci yeen ñi presse bi ngeen ko dimbali mu dem ci maire yi ñu jàppale ko mu dem ci communicateur traditionnel ñu jàppale ko ñu dem ci acteur culturel yi acteur développement yi nekk ci arrondissement bi ñëpp ñu ngi fi parce que gis ngeen fii nii ay difficultés yoo xam ne y a de cela 20 ans le terrain élevage boo xam ne bi mais approche jeunes yi moo ko réglé donc fii population mom sa saa yi leen joxe liñ moom ñu delloo ñu delloo lo fogul foogul te lii population yi def tay jii nii mais man mënoo ko sama bop mais amana ñom ñoma jappalé jàppale xelal ma buñu réussir donc mom bu défé loolu aussi des réussir te yaakaar naa il va réussir et maa ngi koy ñaanal vivement en tout cas sa yi ma soxlaa wax ko ko ci passation de service yi ko adjoint wax ko préfet man Sénégal moma ñor réew mi dem kanam moma ñor te émergence bi nga xam moom la wax dañ ca wara dem pétrole ak gaz yi di génn

boo xamante ne dina ko ubbil yeneen bunt te loolu ñun leer nañu Marcel paregul ci service bu mu war a rendre réew mi paregul lii étape la mais gis nañu ñoo xam ne balaa ñu gën a rendre service état bi rek ñu retraité parce que bu boobaa amatul benn pression bu mu am amul benn hiérarchie bu muy topp lu dul liggéey bi rek donc kerew maa ko koy wax ma ne ko administration mu ngi mel ni kuy traversé dex dale ko rive bi ba jàll ci beneen riw bële donc ñi mu àndaloon soobandoor duggandoor ci dex boobu am na ñu bëri ñoo xam ne ay jësit ay kayma ak yeneen ak yeneen lekk nañ leen ci biir waxin la am na ñoo xam ne crampe daf leen jàpp ci biir yàlla suturaal ko mu duggee fii ba jàll fële musul am lu tubaab bi di war demande explication ci si kilifaam yi musul am euh, remarque boo xamante ne nit ñi defal nañ ko lu dul sant ko gërëm ko di ko félicité moom waxul lépp lu mu am ci administration depuis ba muy jàngale amoon na ay façon félicitation bu nekk amoon na ay façon décoration bu nekk ba bu mujj bi la tudd mooy bi nga xamante ne barki démb rek lañ ko teg ñu defal ko officier de l'ordre national du mérite loolu nag dëgg yàlla ba tey xeeb nañ ko mérité nañu lu ëpp lool donc Marcel euh, nit ñëpp ko soxla ñëpp ay séddoo ak moom loo soxla suba ba ngoon la preuve est là boo xoolee ñu mu lim fii ak ñi nit ñi ni ko ñëwal musuma gis cérémonie bu melni ni donc loolu moko liggéey nit ki loolu liggéey rek lañ lay fay loolu leble rek lañ lay fay yalla nañu yalla xiir ci leble lu baax yalla nañu ñun tamit ñu dem ba am bés bu melni nii loolu moy mooy li nga xamantene mom la koy wax mu ñaanal ñu koy ñaanal waye mom mu ñaanal ñun tamit ñu dem ba génn ci si bi bismillahi rahim da administration neexul mën nga def fukk yu baax kenn du ko tudd waaye bu yaqku rek yak na li yep yalla sutural nako ba ben yàqu ci mom la mu liggéey fii depuis ba muy ba allah donc euh, ñu koy remercier ñu felicite, koy féliciter ñu koy ñaanal ñaanal ko vraiment en tout cas retraite bi mu sedd ci mom bu ubil ko yenen bunt ndax desa na kattan na xam-xam bi dese na lu bare bare bare bare donc ko xol da nga naan est ce amna 60 ans mais lool la yalla dogal. du woné ni macha allah ñun contane nañu ci Marcel bu baaxa baaxa baaxa baaxa ba liggey bu fi def. ak fa mu jaar yëpp comme ni mu ko waxee jaar na Fouta jaar Bawol jaar Dakar jaar si séeréer yi fële côté Sine côté Fimela fépp fu mu jaar ba léegi ku fa jaar rek problème la moo tax kii nga xamante ne moo moo koy wutu remplacer Marcel dafa jafe waaye kooku dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla sutural parce que bu ko yàlla jàppalewul bu ko yàlla suturaalul alors remplacer Marcel dafa yombul mais fu mu dem fu nekk rek bàyyi fa administration bàyyi fa rigueur bàyyi fa loo xamante ne ku ñëw rek sa liggéey war naa yomb waaw sa liggéey war naa yomb bu Marcel def na ko fépp mu jaar parce que ñun xamante nañu ñoo bokkoon promo waaye euh, xamante nañu suñu biir liggéey bu am solo bu mu def fépp mu jaar ba ci kilifa yi ci kaw xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax Marcel def na ko fépp mu jaar parce que ñun xamante nañu ñoo bokkoon promo waaye Euh, xamante nañ suñu biir liggéey bu am solo bu mu def fépp mu jaar ba ci kilifa yi ci kaw xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax a baax xanaa kay li ma koy ñaanal te li koy sant mooy mu bind livre ci administration territoriale bàyyi ko fi parce que xam-xam bi moom mu ngi ci bopp bi waaye na ko matérialiser bind livre bu am solo bàyyi ko fii pour les générations futures parce que dañ koy soxla te dinañu dem ba soxla ko jamono boo xamante ne xëy na dootul tal ndax bu demee ba nekk mag am na yoo xam ne dootul tal mais sa li nga fi bàyyi mooy continuer di wax ci sa tur mooy continuer également xale yi di ko jëfandikoo pour mën a sukkandiku. Monsieur le préfet du département de Pikine. Monsieur le préfet du département de Rufisque. Madame le préfet du département de Bambay, je salue, passage, qui a bien voulu prendre part à cette cérémonie et présider même la délégation du CDD. C'est une euh, sœur à moi, euh, j'allais dire, euh, une autre initiative qui m'a beaucoup marquée et comme disait l'autre, qui m'a réveillé de mon sommeil dogmatique pendant les six années que nous avons passées ensemble honorables messieurs les sous-préfets entrants et sortants, messieurs les sous-préfets de Yembel, Sangalkam, Simbandi Noto, Brasso, honorables députés, messieurs les maires de l'arrondissement de Tcharoy, messieurs les maires de l'arrondissement de Baba mesdames, messieurs les chefs de services départementaux et locaux, autorités civiles et militaires, Notabilité religieuse et honorable honorables invités. Tout d'abord et en toute priorité, louange à Dieu pour nous avoir gratifié dans sa miséricorde de la faveur de nous réunir en ce moment solennel sur cette terre de Tiaroy pour les besoins de mon installation consécutive à mon nomination à la tête de cette circonscription. Aussi, Ma pensée va à l'endroit de mes parents qui m'ont bien préparé à être utile pour la société. Je les en remercie du fond du cœur. Longue vue à eux. C'est l'occasion d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette confiance renouvelée. Je ne cesserai jamais de lui manifester mon engagement et mon dévouement à servir loyalement mon pays. Je confonds dans ces remerciements toutes les délégations qui ont effectué le déplacement à Tiaroy, notamment ma famille, mes frères et sœurs, mes cousins, ma maman et les amis, la grande famille de Pékin qui m'a vu naître. Je suis de Pékin, tout le monde connaît ici Yakay Ndank c'est là où je suis né. Tout le monde connaît le cimetière de Pékin, c'est là où je suis né et grandi. Tout le monde connaît le lycée Limamoulaye, c'est là où j'ai fait tous mes études. Donc la grande famille de Pikine qui va en vivre naître, les membres personnels de la sous-préfecture de Baba la population du dit arrondissement, je le disais tantôt, Madame le Préfet, qui a bien voulu présider la délégation du CDD, les autorités venant d'ailleurs, les honorables préfets à la retraite pour me témoigner leur soutien. Soyez tous assurés que je ne perdrai jamais de vue pour autant les liens sacrés qui nous unissent. Votre geste amical et fraternel est allé tout droit au cœur. Enfin, Monsieur le Préfet, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à mes épouses. Mais, je dis bien mais, puis <laughs> aussi bien... Ah je citerai Madame de Rocaignan, qui a honoré de sa présence et qui représente en ce sens ses co-épouses. Donc, ces épouses qui m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles. Et tout le monde sait ce que je dis. J'ai vécu des années difficiles dans le commandement territorial. Que vous le sachiez ou non, peut-être vous me connaissez de manière, d'une autre manière, sans me connaître. Parce que j'ai vécu dans ce commandement territorial des souvenirs assez pénible. Et pendant cette période-là, de longues années, elles m'ont épaulé, elles m'ont soutenu, elles ont participé à mon rééquilibrage. Je vous remercie. Revenant sur euh, l'arrondissement de Tiaroy, je me permettrai de m'attarder sur mon successeur et aîné. Le sous-préfet Marcel Tchao, grand centre gars yi nañ ba di ma sant la Ousmane Thiaw xam naa ne nag yaa ngi yóbbu mais bul yóbbaale lenn li amul lo fi bayyi Ousmane Thiaw suñ ko waxee ah day wane ne yaa yobbu walé alors que j'ai besoin de vous remplacer et de me faire mes preuves comme vous l'avez fait mais nak batine la jum boobu batine la M. Tchaouma a su imprimer sa marque en instaurant un climat apaisé de travail et la confiance entre l'administration et les administrés. Et ça, tout le monde l'a reconnu ici. Je pense que c'est le commun de tous les discours qui ont été faits depuis ce matin. Donc je n'invente absolument rien. Ces jalons qu'il a su avec intelligence, ces jalons qu'il a su poser avec intelligence, sont sans aucun doute pour nous des sillons sûrs que nous emprunterons dans l'exercice de notre mission. Cet éminent sous-préfet, après un service dignement accompli, vient d'être appelé à faire voir ses droits à la retraite. Tout en lui souhaitant un repos, un repos actif rayonnant, je voudrais le remercier de tout ce qu'il a pu me dire pour faciliter ma prise de fonction dans ce poste dont je mesure l'intérêt extrême et que j'apprenne déjà à connaître. Du département de Pékin, cet apprentissage se fera avec vous. Et d'ores et déjà, vous pouvez considérer que ma loyauté absolue vous est déjà acquise. Ce même engagement va à l'endroit de ma collègue de Pékin en particulier et en général à toutes les autorités administratives de la région de Dakar. Chers collaborateurs, le commandement territorial, comme disait l'autre, est rythmé de succession, d'attachement et d'arrachement. Mais comme vous le vivez, le représentant de l'État, en sa qualité de partenaire qui se veut loyal et engagé dans le combat pour le développement économique, social de sa circonscription, n'est pas évidemment seul. Sur ce registre, je fais des maires ici présents, des partenaires privilégiés étant rassurés qu'ils prendront leurs responsabilités pour mettre en évidence l'intérêt général, chacun dans son rôle, dans la confiance, dans le respect mutuel et dans la légalité. Vous comprenez aisément que je mets aussi en exergue la place des forces de défense et de sécurité et le rôle des services régionaux, des services départementaux et locaux, étatiques et non étatiques. Je les invite tous à la collaboration. J'irai à la rencontre des forces vives de la circonscription, notamment les chefs de village, les délégués de quartier, les organisations communautaires formées de femmes et d'hommes et de jeunes, des acteurs qui œuvrent dans les domaines les plus divers de l'économie. J'allais dire les secteurs formels et informels, de la culture, de l'action sociale, sanitaire, etc. Je remercie les chefs religieux et mieux de leur présence. Je leur tends la main, me confie en eux et j'en fais déjà des partenaires privilégiés. Il apparaît donc en filigrane cet appel à l'ensemble des segments de la population confondus, aux élus, aux chefs de village, aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux acteurs et forces divers de travailler en synergie suivant la même exigence d'unité et de cohésion dans le respect de la règle de droit au service de nos concitoyens pour prendre à bras le corps les défis qui ne manquent pas. Je vous remercie de votre aimable attention.